ألف ñu ñaan yàlla jataay yi ñuy aman yal na ko yàlla def ak jaamu yàlla gërëm ko te yàggal nu defal ak wér ko mën a jaamu bi jaay Seydina Muhammad noo ngi siyaar mboolem kippaango yëpp di leen ndokkeel tomb biñ bëgg a indi tey nag muy tomb bu yaatu ci fiq boo xamante ni bokk na ci euh, bunt yi nga xam bii Euh, téere yi fiq yi dañ ciy wax lu bare bare bare bare bare ndax li euh, ci ay di ay lënt daa bari ak i wuute ak maanaam nit ñi niñ koy doxale waaye nag euh, boroom xam-xam yeet def nañ ci seen farlu leeral ci seen kéemtalaay kàttan tomb bi mooy du jëm ci wàllu sëy sëy nañ koy takkee yi cay am yëpp daal moom lañ fas yéene door incha allah liñ ci fas yéene jukki tey nag mooy kilifa yi nga xay xañ bi e, ñooy war a mayib sëy wala boog tàmbali bi tey mooy ponki sëy li nga xañ bii bu doon tinim néeg la keno yi nga xañ bii mooy taxaw ñu soog a mën a taxaw nag taxawal maanaam e, tabax bi wala fondement bi ñeenti kenu la sëy ñeenti kenu la am kenu yooyu bu ci amul rek sëy bi mën naa indi ami jafe-jafe biñ bëgg a waxtaane tey nag mooy kilifa gi nga xay ne bii moom lañuy wax ne moom la alquran wax ni sëy dafa war a am kilifa yonte wax ni bépp sëy boo xamante ni bii amul kilifa sëy boobee neen la sëy boobee neen la sëy boobee neen la kon kilifa mënu caa ñàkk bu ñu wax kilifa nag euh, ki nga xamante ni moom lañuy ñu may muy soxna si moom lañuy ñuy wax waajuróomu góor wala kilifaam dina ñëw ci kilifa yi niñ demee waaw kon du ci sart ci ku góor ki mu war a am kilifa ñu soog koo may soxna donte nag taamu nañ ko ci waaye nag euh, kilifa gi tax ñuy wax mooy jigéen sëñutu maye boppam léeg-léeg nag nga dégg ku naan léeg-léeg ñu la koy laaj sax ndax ku màggata màggata màggata màggat sañ naa ñëw rek joxu bu moom nit ni ko yow laa may sama bopp jigéen mën ak fu mu toll ak état bu mën di toll il faut que dañ ko war a may loolu ñu xam ko bu baax a baax da war a am kilifa euh, tomb bi nag njéem kilifa lañ bëgg a waxtaan dafa am ay charte yoo xam ni moo daje ci kilifa ak ñan ñooy kilifa yi la ci jëkk ab as lay doon day doon koo xam ni rachid rachid moo xam moom lañ wax koo xam bii Euh, du ko euh, alalam du ko pasar pasare am na ci ñoo xam ne bii euh, xamuñu nu ñuy doxale bu ñu génnoon tey war a joxe ci lii ñaari junni boo moytu fukk junni lañ cee jox nga xay ni dañ koy yiir kooku sax dañuy wax ni alalam waruñu ko bàyyi ak moom lu la nga xam ne dana ko ca soxlaa dañ ko war a yiir moo ak jirim ak yu mel noonu dañ leen war a yiir dañu wax ni kooku ki nga xam ne bi nekkul kurashit bu boobaa kooku wërta maye ay kilifaam ñoo ko war a jàppale ba buy maye ndax jombul du xàmmee koo xam ne ku jub la ak ku jub ak yañ ci sart yëpp kon Rachid dafa war a nekk ab jullitam ab jullit ab jullit moo war a mën a maye ab jullit ku juran doom te yow mi ko jur nekkoo ci diine ji diine islaam sa doom ji dugg ci lislaam yow waru ko may donte la sa doom la. Hmm. naka doon itam dafa war a doon mu kàllaf koo amu koo xamagul ni amagul ati mu àll kàllaf amagul fukki at ak juróom-ñett wala mandarga yi nga xëy ni ci la nit nekkee mu kàllaf amagu ko kooku wërta maye kii maye tam wërta nekk koo xëy dafa dafa war a xarmal di aj màkka wala mu xarmal di képp koo xëy ni dangaa xarmal nekk ci xarmalu màkk aj màkka wala nga xarmal di umra ñaar yooyu benn ci mënoo may soxna wala ñu lay may soxna la fekk jiimamu ba mata loolee nga def waaw ba tey nag ci kilifa yi euh, fi mu teel nekk nii man nga buñ lay may soxna soo amul góor gu dem ca fañ lay maye soxna nungu may ga sañ ngaa yebal jigéen sañ ngaa yebal jigéen gëj naa sax kawe loolu sañ ngaa yebal jigéen sa sa jigéen wala yu mel noonu jigéen mën naa nangu ak may li mënta def moom jigéen mooy maye maye mënu koo def moom jigéen waaye jigéen sañ ga tey ni nga yebali ji góor buñ lay may soxna ñu dem nungul la may ga fañ koy maye jigéen mën naa nungu ak may waaye mënta maye kenn mhm. wa taqabalul mar'atu uqdata dhakra mhm. naka noonu jigéen su fekkee dafa yoroon benn saa bàjjan yu mel noonu ñu joxoon ko ko ak lu lu mu ko yilif yilif yilif buñ ko dee maye fokk mu jël góor kooko maye ko waaye jigéen ji moom sëñut maanaam euh, di may maye kon daal jigéen moom mënta maye kenn naka noonu tam ki nga xam ne dañoo jël ab xele dénk ko ko bu fi ay waajuram nekkul nga xam ni am na ñuy sax dañuy wax ni ay yaxam laa la laaj wala jox la ko jox goo xëy ne xañ na nit ñi léppam say lo say yoxo la moom say yoxo la nekk kooko sañ naa may dana ci ñëw hmm. naka noonu tam su fekkeeti ni ñooñu nekkuñu fii ki nga xamante ni bii dañ koo goreel kaka goreelan mën naa eh, mën na koo may waaye nag buñ demee ba ci maanaam kilifa yi kan moo war am sañ-sañu may dañ ndax dañ ko toftali kii moo ci jiitu kii ci topp kii ci topp doom ju nekk moo am sañ-sañ ci maye yaayam doom moo ci jiitu bu fa doom ji nekkul doomam nekk fa muy ab sët ab sët moo ma moo gën a yay ci yaye maye maamam ju jigéen bu fa ab sët sët nekkul sët bu góor bu boobaa bàyyi soxna si soog a ñëw nag kilifa yi noonu lañ ko tegtaloo doom moo jiitu ab sët mooy doomi doom bu fa dékkul nag bàyyi soxna si soog a ñëw da gis nag léeg-léeg sax nag doom nekk fi ab sët nekk wala ab sët nekk fi ñu ni nañ wooyi bàyyim loolu du ci dara loolu lépp buñ ci juboo mën na kilifa gi gën a jigee mën na fee nekk ñu bàyyi fa kilifa googu kilifa gi gën a gën ah, ah waaw kilifa gi gën a jigee ci may laa bëgg a wax mën na fee nekk ñu bàyyi fi dem kilifa gën a sori de maye ko loolu lépp man naa nekk moo waral nga gis doom di fi nekk walla bu fi nekk ab doom nekkul doom nekkul ab sët bu góor nekk fi ñu bàyyi fa lépp ni nañ dem ca baayam mooy maye waaye ñii ñoo jiitu baay ci maye su fi baay nekkul ñii nekku fi ki ci topp mooy mbokk mbokk mi nag ka ca jiitu mooy ku mbokkal ndey ak baay bu fa nekkul ki mbokkal baay bu boobaa ñoom ñoo sañ a maye su fekkete ni ñoo nekku fa maam ju góor maam ju góor sañ naan maye sëtam sëtam bu jigéen boobu mhm. bu fa nekku nag fa im na kullu kullin bu ko defee fa im na kullun mooy su fekkete ni maam ju góor nekkuñu fi danga naan kon maanaam doomi baay kon muy baay bu ndaw doomi baay ak doomi maam ju góor ñoom ñoo ci ñoo ci topp fa im na kulli ndax waxal na la ne bu fi doom nekkul sët ab sët moo fi nekk mhm. kon ñooñu noonu lañ ko tëbtal tëbtalee mhm. bu fekkee ñooñu nekkuñu fi bu boobaa sañ nañ bu fekkee te ku ñu doon te ba jaam di am la comme léegi jaam moom amatul ki nga xëy ni bii ka ko goree lan wax naa ko kooku sañ na moo moo ci gën a yey naka nootan ki nga xëy ni moo yoroon xele bi moom it sañ naa maye su fekkeeti ni nag amuñu ñii ñëpp wala soxna si amul ay kilifaam yoo xam ni moo koy maanaam maye bu boobaa àttekat bi nga xam ne moo yore wàllu islaam bu boobaa bu ko mayee may ba may ga baax na su fekkeeti soxna si loolu lépp amu fi fii kër gisu fi menn mbokkam te ñi nga nii ñu ko limee nii gis ci menn mbokk bu boobaa sañ naa dem gis jullit boo xam ne bii ñëpp rafetlu na ak jullitam kuy kuy jëfe-jëf ak jullitam nag ku mat sëkk la mu ne ko dama bëgg bu boobaa nga may ma ci fii la soxna sañ dem ci ab kilifa ñu ko nag may ma bu boobaa bu fekkee bokk yi yëpp amul fa léegi nag léegi mbir day am <clears throat> man ngaa am ay kilifa yu bari maanaam say rakk yu bari say say mag yu bari say mag yu góor nekk fi ñoom ñëpp kenn ku ne sañ na laa ma maye wala nga am say doom say doom ñoom ñëpp kenn ku ne sañ na laa maye nga xam ni ñoom ñëpp ñoo yam ci yow ab sañ-sañ te biñ yamee ci yow ab sañ am na ci kenn ku ci nekk ku mu bëgg ni moom la la bëgg may bañ xuloo nga xam ni mën naa am léeg-léeg da ci am ci euh, kii kii lañ koy may kii ni kii lañ koy may ñoom ñëpp fekk booba ñoo yam daraja ci maye gi nga xam bu ñu xasi doon say doom rek ñoom ñëpp ñoo yem daraja amuñu naa kii ak kaa ñoo yem daraja kenn ku ne sañ na laa may kii ni kii lañ koy may kii ni kii lañ koy may ba ñu xuloo bu boobaa su fekkee noonu la demee ba ñu xuloo bu boobaa dañuy dem ci àtte tribunal islam ba wala àttekat ka nga xam ne moo fa yor diine ji ñoom ñaar ñi mu déglu leen bu leen dégloo ci wax ji kenn ku ne ni ko diw ñi kët nangam ak nangam ak nangam ak nangam kenn ku ne mu indi say lay bu boobaa àttekat ba moom mooy xool ca wax jañ ko wax mu daal di dogal ni diw mii kii mu wax moom lañ koy may moom lañ koy may te bu boobaa euh, kooka sañ nañ ko ko may ñu wax ne tam dañuy aay ci maanaam ak labat nit ñëw di labat nga ñëw di labat ci kaw nga ñëw di labat ci kaw mook nit di waxaale te noppiwul ci waxaale wala njaay mi dëggagul nga ñëw di di di waxaale ci kaw waxaal ma loolu lañ aaye waaye nag nee nañ aayuñ ko koo xam ne xam nga ni faasix la koo xam day dox tànki caaxaan wala koo xam day naan sàngara wala kii kat soxna si ku yiw la te xam nga ni kii koy labatkat bu ci bu ci bu ko jotee mën naa am euh, jombul dina ko dugal ci bunt yoo xam ne naka su bu boobaa kooku moom aayuñu yow nga fekk